du conseil municipal bi yëpp di nuyu délégué de quartier yi di nuyu ñëpp ñi nga xam ni euh, ñi ngi dox di wax di jëf pour Médina jëm kanam yàlla na leen ci yàlla jàppale ñun ñëpp yàlla def ko di beral nuyoo nag borom gilet vert yi donc bu ngeen tàccu gilet parce que gilet vert yi li yomb yëpp ñoo ko yombal c'est les personnels de la mairie ils ont été disponibles léegi rek ñu ngi werante ci lan war a nekk contribution maire ci ceeb bi il faut que ñu koy wax maire bi dafa contribuer ci budget bu yaatu lu mu néew néew bés bu nekk na joxe cent mille wala cent cinquante mille wala deux pour nit ñi yëkkati pour li nit ñi lekk ndox mi ñuy naan monsieur le ministre kooku it dafa nekk contribution bu ñu war a teg ci li président Macky Sall génne mu gën a rafet loolu moo fi am Médina contribution maire bi ñoo na bi ñuy xaar nag jotaguñu ko bi ñu soxla jotaguñu ko mooy contribution bi maire bi bëgg génne mu nekk 120 millions yoo xam ne dañ ci def ay kit jox ko nit ñi nga xam ni dañu ko soxla monsieur le maire ñëpp a ngi koy xaar ñëpp yaakaar nañ ci wax nañ leen ci def ma bëggoon euh, nuyu responsable yi fi nekk ñëpp du wax responsable politique yi dama naan les responsable de la Médina ay responsable Médina lañu du ay affaire politique mais kilifa lañ ci gox bi ay nit ñu baax lañ ci gox bi ñu am njëriñ lañu ko ci gox bi mais dama bëgg def ñaari témoignage parce que su ma wax du bari benn bi je le faire sur le maire parce que bi ñu toogee ba jàpp ni ñun dañu war a dem seeti maire bi fekki ko bi ma ko ooyee téléphone ni ko dama bëgg nga recevoir ñu en audience c'était un vendredi mu ne ma maa ngi lay xaar à 18h j'étais dans son bureau avec une délégation bi ñu ñëwee waxtaan ba pare mu ne ma Seydou sama mag nga ku am coono nit ñi loolu dama lay jàppale danga nga naan lu dul jërëjëf mu ne ma mbir yaa ngi yëpp teg naa ko solo loxo mu ooñu réunion avant loolu ci waxtaan ma génne lettre bi ministre Mansour fay signé pour diir naka la ñuy tëggee mbir mi mu ne ma jotaguma lettre bi gisaguma ko ma yónnee ko mu ne ma li lettre bi liñ ci nekk yëpp dinaa ko def parce que leneen laa xalaatoon mais comme li ma xalaatoon dëppoowul ak li ministre bi wax li ministre bi wax loolu laay def mooy participation wu list concurrente yi et dem na ba jéggi loolu parce que boo leen ci ay structure yoo xam ni ci jamono liste concurrente nekk gu ñoon Médina donc ouverture boobu gis naa ko mu ne ma jël naa yëpp teg ko sa loxo ñu ñëw première réunion dimanche nit ñaa ngi toog ñi fi nekkoon nañ fi mu ne ma maa koy jiite bu fi nekkul yaa koy jiite ñu defar ba defar ba xam commission ñi def mu ne ma jox ma nit ñi nga xam ni yaakaar nga ne ni mat nañu ko te mën nañ ko ndaxte bugguma benn nit bu bokk ci man jiite dara donc voilà ni ñu ko liggéeyee ñu jàppoon ni dañuy arrêté ciblage bi le dimanche mu ne ma comme yéen a ngi door a ñëw dañuy yokkat siblage bi d'une semaine yónnee leen seen ay nit pour ñu jàppale comité yi fi nekk au nombre de vingt pour ku ci ne bokk ci ciblage bi pour mbir mi transparent pour mbir mi jaar ñu jaar yoon donc loolu lay témoigner waxoon naa ko fii dinaa ko waxaat donc foofu déggoo biñ ci am dégg naa ni naan dañuy complot politique complot ñu politique dañoo joxante loxo pour nitu Médina yi am jàmm amul complot politique amul complot politique te li mu xam ci mbir mi li mu ci gërëm président Macky Sall man ko lu toll noonu parce que taxaw na fii keroog ajjuma wax lan mooy porté wu li ñuy def donc Bamba dañ lay gërëm dañ lay gërëm bu baax